asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen ci yi lien bi pour ngeen mën a abonné si ñaareelu seen bi Senfootball TV moo ngi foofu dem leen nga abonné tey nag dama am mbégte lool sama xol seddu guy waa Mexico yi franchement ay jàmbaar lañ jar nañu tàccu am nañu fulla am nañu fariga tout d'abord dañuy ñaanal yaay Raoul Mendy bi xamante ne dafa ñàkk mu dugal bi xam jël yére bi bind si maman franchement boo xoolee image yi sa yaram day daw trop ñoo ngi ñaanal yaayam xam nga yàlla yàlla xare ko aljana yi gën a kawe donc métti na trop trop mais moom fexe na tey ba football joué euh, gaynde ñu ñoo gagné 5-3 Portugal Portugal nag franchement meilleur joueur si biir si ko foofu lañ nekk boo xoolee at i mujj ñoo jël coupe du monde mais damay remercier tout d' abord tamit euh, entraîneur bu Sénégal tactiquement dañoo taxaw gis nañ ni bu si ko buñ koy soog a xam moo ëppoon ay bi mais léegi da ngay gis ne tactiquement foog nga nga taxaw euh, dispositif tactique bi mu teg tey franchement baax na mu door 6-1 Uruguay jël revanche am ndax ñoo leen toppaloo coupe du monde bi mu mujj Portugal donc tey jël na revanche am ba pare qualifié c' est très important donc suñu gaynde lañ leen di tàcc bu baax a baax mérité nañu lépp quoi donc képp ku xamante ne sénégalais la ñaanal leen donte ñoo ngi wax ne quart de finale ñu visé ku dóor Portugal war na mën a jël sax coupe du monde bi coupe d' Afrique bi fii moom amatul dara lu ñuy wane seen bopp chaque année ñu jël ko donc ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax te mérité nañ ko si ñaari match yi dañu wane fulla ak fayda mbokk ñi ci commentaire wax ma seen xalaat ak seen gis-gis si match bi lee ma leen di jaajëfal nag bu baax baax di leen wax ba beneen sur seen football TV. bu leen fàtte di abonné ak di cliquer si cloche boobu ngeen di gis video bu ñëw ngeen man ko seetaan jërëjëf ba beneen.